ID New York City maanaam carte d'identité New York City jàppal ab dig daje tey ngir bindu ngir ID NYC boo dul fay dara wooteel ci trois 311 te nga wax ID NYC wala nga seet site internet bii di https deux point slash slash www point nyc point gov tiré euh, slash site slash idnyc slash index point page id nyc maanaam IDNYC eh, NYC nekk na ab kartu ràññeekaay boo dul fay dara ngir waa New York yi am fukki at ak lu ko ëpp dafay ànd ak lu ëpp fukk ak ñaari bénéfice benn bénéfice IDNYC du la jox kayitu sañ-sañu liggéey mën nañu ko jëfandikoo ngir tukki wala ci biti dëkku New York IDNYC itam du am jeexital ci nekkinu gàddaay IDNYC du dajale ay xibaaru nekkin nekkinu gàddaay te xibaaru aji bindu yi dañu leen di denc ci sutura dëkk bi dina aar xibaaru IDNYC ci ni ko yoon mayee